maa ngi dalal ñépp ñuy jëfandikoo site internet bu linguistique bi Ousmane laa tudd wolof lay làkk ngelawu bët gànnaar bi ak naaj bi dañu doon werante ku ci ëpp doole bi tukkikat bi yegsee ak kaalaam gu diis ñoom ñaar nangu nañu ni ku ci fexe ba tukkikat bi dindi kaalaam yaa ëpp doole sa moroom ginnaaw loolu ngelawu bët gànnaar bi ëf lépp lu mu mën waaye lu mu ëf ëf tukkikat bi gëna a muuroo kaalaam ci mu mujjeel ga ngelawu bët gànnaar bi dakkal pexem ba léegi nag ci la naaj bi tàngal bu baax ci saa si la tukkikat bi dindi kaalaam ga bi loolu amee la ngelawu bët gànnaar bi nangoo ni naaj bi moo ko ëpp doole